léeboon lippoon amoon na fi daan na am yéen fekke yaa wax ñu dégg waxi tey jarula dóoree sa doom dafa amoon benn sëriñ boo xam ni bii àddina juróom-ñaar moo fi dàq jàng am na téeméeri ndongo ak juróom-ñaar fukk di jàngal ndongo yooyu ba yàgg mu am benn ndongo gan kooku la gën a bëgg te setub sëriñ bi ndongo la gën a bëgg sëriñ bi ni maa ngiy tukki ndongo bi soo xëyee nga dem ca tool ya ca basi ba nga tàmbale ca béy sëriñ ba nag daldi génn ndeke tukkiwul mu fab ab fetal ak ñaari gémmiñam dem yéeg ca daqaar ga ca tool ba te ca daqaar ga fi la ndongo bi waree xëy di béy sëriñ bi daldi yéeg ca kaw ne cell jabar ju ndaw ji daldi ne ndongoli li nafa dem xarum sëriñ bi nga xam ne jël na juróom ñaari tabaski moom laa lay reyal togg ko ak la ca war lépp jox la ko te su ma ñëwee dina mel ni neneen juróom-ñaari kiloy feer yu weex dinaa ko sol fekk lafa ak ñetti kiloy feer yu xonk ndongo ba daldi gàddu goppam daldi wuti tool ya ba mu yegsee daldi gestu fu ne dóor di tàmbalee di béy daldi ne bismillaahi daldi door woy naan ca ca ca basi ba ca ca basi ba bay sëriñ tukkeeti na waay ca ca ca basi ba yàlla na dee nag ma donn kër donn ab toolam ca ca ca basi ba ba doon naa ca sëtub ndaawam ca ca ca basi ba ba mu wéyee ba noppi daldi sëpp góob bi daldi tànk ci ndaali naan ba noppi tàmbali di séentu ndaw sa nag booba woo na ñeenti ndongo ñu fab xarma daldi koy rendi daldi koy fees mu daldi koy togg ndongo li toog ci tool yi ba yàgg togg gi xeeñ ko mu gëstu seen tan yi di naaw mu daldi sëggaat ab góppam di bey daldi di tàmbaliwaat di wéy ca ca ca basi ba ca ca ca basi ba baay sëriñ tukkeeti na waay ca ca ca basi ba yàlla na ca dee nag ma donn kër donn ab toolam ca ca ca basi ba ba donnaale ab setu daawam ca ca ca basi ba ndaw sa nag yenu ndab la nag fekk ko fa daldi sukk ne ko jërëjëf mu daldi yenneeku daldi dindi sër yi lal ba mu des benn sër bu ndaw bi mu daldi jaaxaan ndekete ni mu tëddee mu ngi jaakaarloog sëriñ bi seeni bët tase mu tàmbali di lox ndongo la ni ko lu mu doon waxal waxal gaaw ndaw si ne ko dañuy jëkk lekk am dañuy jagal ndongo la xool bëti ndaw si ne ca kaw mu ne kii de dara la gis waay dal di gëstu teen seen góor gi ci kaw garab gi ak fetalam mu daldi yuuxu ni dañuy jagal ndax nu gaaw a dee fala léeb doxee tàbbi géej bakkan bu ko njëkk foon tàbbi àjjana